na nga def mën naa la dimbali. yaa dama doon xool audio daal rek xam naa yow expert bi. waaw effectivement. dañu nice. bii nii fan la jóge boobu Ashanti tribu bu Ghana. dix-neuvième siècle. Eh? ok bii nag. bii moom mi ngi jóge ba Bénin seizième siècle. léegi wax ma ci bii nag. tamit jóge ba Bénin septième siècle <coughs> Fula tribu je crois. non. pardon dégguma. soldat anglais ñoo ko jële woon Bénin. mais mu ngi jóge Wakanda. te ñu ngi ko yàttee ci vibranium. <laughs> pour sam dama ñëw fii pour nangu suñu yëf. objet d'art yi pour jaay. nga foog nan la sa maam yi def ba indi ko fii. du foog na dañ ko jënd wala dañ ko sàcc comme ni ñu sàcc la nekk fii yëpp. waaw defe naa <coughs> damay woo sécurité bi. sécurité bi man nag lay xool li duggee si musée bi ba léegi ndax li ma ñuul mais gisuñu li ma def si biir kaas bi.